nee nañu Guinée euh, politique musul gagné euh, comment dire nga xamante ne waaw comme gisee noonu bi bi yaa ngi noonu ñu ngi noonu dañoo bëgg a dugg fi nga xam ne moo ci ambassade bi pour jéem a récupérer ambassadeur bi ñu ngi jéem a pousse xeer yi pour mun a am yoon pour jàll parce que fii yëpp boo xoolee ay xeer la fii yëpp ay xeer la waaw ba léegi yéen ngi noonu yéen ngi koy gis léegi fii yëpp boo xoolee pël Fuuta yi ñu ngi continuer di wooye li nga xam ni moo di seen xeex côté bi bépp fépp fépp fépp nañ tas parce que jëm nañ leen disperser boo xoolee oto oto bii nañ war a def ki nga xamante ni moo di ambassadeur bi oto boobu ngeen gis 4 x noir bi sécurité bi waa bib la waa bib ñoo ñëw gis nañ ñoom oto bu ñu indi sax maanaam boo xoolee ci gis-gis rek dafa xaw a ñàng comme ni ngeen ko gisee noonu waa bib bim national police police national mi ngi noonu ñu ko gisee noonu boo xoolee ñoom ñu ñu ngi ñu ngi tax seen euh, seen ñu ngi armé dañ ko dañ ko bëgg a parce que boo xoolee ñoom sécurité bi buñ ko buñ ko gisee rek xamal ni ñoom li ñu naan élément bi bi bu ñu génnee rek xamal ni cas bi commencé naa critique parce que ñoom duñu ay caaxaan génnewu leen ñoom foo leen gis rek xamal ni cas bi commencé naa critique moo tax ñu ñu génn boo xoolee ay gilet pare bal nañ sol yor seeni armes gis na yéen a ngi koy gis noonu yéen a ngi gis noonu. seen sécurité dafa dafa dafa xaw a am doole ñoom bu ñu génnee rek mooy affaire yi mi ngi commencé jéggi dayoo dañu bëgg a évacuer ki nga xamante ni moo di ambassade bi ambassadeur bi du moins. yéen a ngi leen gis noonu seen taxawaay. waaw ñu ngi noonu gis na ñu ngi dem boo gisee ñu moom lañuy jëli mi ngi noonu ambassadeur nañuy jëli boo gisee seen taxawaay boo xoolee seen loxo yi ñu ngi ko teg seen pistolet maanaam lu ñu bu jeexi jaax amee rek ñu mun a boo xoolee waaw taxaw nañ mel ni affaire yi daal mujjee na ëpp loxo parce que élément bi moom foo leen gis rek xamal ni que affaire yi mujje naa metti mooy li leen metti di problème bi am Guinée te ñoom ne nañ fas yéene bàyyi benn benn benn yoon moo waraloon ñu ñëw fii nga xamante ni moo ci ambassade Guinée bi fii Sénégal. naa nii mooy dañuy jéem a def le tout nga xam ni. ki nga xamante ni moo di ambassadeur bi du am fenn fenn fenn fu ko nit ñi mën a gisee ñëw dugal ko direct ci oto bi jéem a garder li nga xamante ni moo di sécurité am parce que élément bi bi bi maanaam seen liggéey dafa jéggi dayoor ba ñoom foo leen gisee rek xamal ni que liggéey bu jéggi dayoor moo leen tax moo leen tax a génn comme ngeen ko gisee noonu euh, bi ba ngi noonu. waaw bi ñoo ñoo jël si ki nga xamante ni moo di ambassade bi ambassadeur bi. Cheikh. mbokk yi gis nga élément bi bi ñoo taxaw ni ñu seen plan nañuy xool ban plan lañ mën a amal pour évacuer ki nga xamante ni moo di. waaw ñu def. ni mooy. ci biti parce que nanguwuñu ñu dem jël ki nga xamante ni image yi amal leen image yu évacuation ki nga xamante ni moo di ambassadeur u Guinée fii ci Sénégal parce dañuy dem ñu nañu taxaw leen boo xoolee élément bi bi yéen a ngi leen di seen na le ñu ne di ko jéem a évacuer ñu noonu di ko jéem a comme ni ngeen ko gisee noonu. ñu ngi ñu ngi taxaw nii ci bunt bi di xaar. Hmm? Euh, Cheikh waaw am ah, mbokk yi yéen a ngi noonu yéen a ngi gis noonu seen oto oto bi ñu war a dugal ki nga xamante ni moo di ambassadeur bi oto baa ngi nii si suñu ginnaaw oto bi ngay gis ni moom mooy 4 x bu noir boobu ngeen gis moom nañu war a dugal ki nga xamante ni moo di ambassadeur bi boobu ba léegi moom nañuy xool fu mu koy jaarale parce sécurité bi maanaam waa bib ñoo ko gérer dem nañ ba gars yi mënatuñ ci dara dara dara dara dara ñi nga xamante ni ñoo di policiers yi Guinée yi ñu ngi ne taxaw policiers yi ñu ngi leen jéem a daax parce que boo xoolee ñu ngi yor benn pancarte bu ñu bind nous préférons la mort que que le troisième mandat nu préférons la mort que le troisième mandat ambassadeur ñu ngi noonu di ko évacuer ñu ngi noonu di ko évacuer dugal nañ ko ci li nga xamante ni moo di fourgonnette bi ñu ngi noonu ñu ngi noonu di ñëw yeneen kër gi yeneen gis noonu oto baa ngi noonu di génn élément bi bi pere nañ ko ba pare ñu ngi koy yóbbu boo xoolee ci fourgonnette bi nañ ko dugal mais teewul nit ñi ñu ngi ñu ngi amal seen manifestation ba léegi ñu ngi continuer di amal seen manifestation boo xoolee sécurité bi ko jël si maanaam sécurité bu jéggi d'ailleurs la parce que boo xoolee ñu ngi ko war a dugal ci li nga xamante ni moo di 4 x bee ngeen di seen 4x4 bu noir bi ko war a dugal ci fourgonnette bi la dugg instant bi pour pour dem gouverneur bi waaw mi ngi noonu mi ngi noonu cortège baa ngi mi ngi noonu di ko yóbbu ba tey mi ngi ci li nga xamante ne mooy fourgonnette bu noir bi ñi ngeen di seen boo xoolee ñu ngi noonu